insulter le président. attention. attention Ousmane Sonko parle de deal Aminata Touré parle de deal. que Aminata Touré yamu ci sax dafa ce n'est même pas invité sax PDS mais PDS. a organisé. donc parle deal et moi. deal lui et moi pour euh, wax dil xam nga mbir momu kan de la tàmbali depuis 3 ans depuis sax euh, affaire u Massalikul Jinaan c'est ça non jiitu na ko ou bien même avant ah. et tu te rappelles quand moo ko njëkk a wax Sénégal kan la c'est Idrissa Seck pour te dire que ils ont une haine viscérale pour président Karima. Wade jour bi ñu ko génnee prison jour bi ko génnee prison il a parlé de deal foofu la njëkk a tàmbali ñu tegati ci processus bi di continuer bi ñu daje Massalikul Jinaan tu te rappel hmm. ñi waxati dil Touba génn ne génne leen ni su lool loolu du warmaal sax kilifa yooyu teg lool boobu ba léegi chaque semaine on parle de dil par certains journalistes waxuma yéen

Mhm. chaque semaine vous des rivaux des rivaux au sein de l'opposition ça veut dire que l'opposition est éparpillée PDS beaucoup de gens non vos rivaux rivaux. l'opposition ah le mot que mais je veux dire pas besoin pas besoin mais je veux dire et que c'est relayé par leur chroniqueur à travers les médias. Mais ça, il y a un cas Alkine Tarata à l'arbre du Verdicène beaucoup depuis plus de 10 ans. Hmm. Depuis plus de 10 ans. L'existant, dans mon temps, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, insulté que le ni qui l'a eu ni quoi j'ai fait après le moi président il a dit il est seul président au monde bon comme des lois et de pour que le coup président Macky Sall Ablaye Wade waxu la ko président Doudou Wade wax na ko ni au Sénégal ni à l'étranger amul fenn ko xam de manière formelle wala informelle bu PDS di wax ak ab Benno Bokk Yaakaar mais ñu continuer rek chaque fois bu PDS taxawé force du di rek ñu créer mo bobu nan dit et tout légui nag tay ci mu dia wax loolu moom mooy Mimi Touré mais Mimi Touré nous considérons qu'elle n'est pas de l'opposition hmm. bokkul opposition ku jog barki démb bokkul lu mu bëggoon bu soté du nekk fi te kooku mënuñu jox benn leçon de morale ni nain politique la quoi ñun du ñu tardé xam nga ñun qu'est-ce qui nous intéresse moom mooy le président Karim Wade ñun ñi ngi suivre processus dina dem congrès bu ñu paree congrès dina ñëw Sénégal dina nekk candidat nekk na candidat ba pare participer aux élections de 2024 léegi président Macky Sall dafa génne euh, def déclaration ne day def dialogue politique wax ji foofu la nous avons pris acte mais pour la